asalaamaaleykum euh, Al Amin maa ngi lay fay di nuyu Marème mi nga toogal di nuyu itamit suñu mbokk téléspectateurs yi di leen ndokkel bu baax ci guddi bu tedd bi tey nag ñu ngi am mbégte euh, teewal leen fii ci Yoff Jàmmalaay bu ñu waxee gàmmu nag suñu xel day dem ci yenn bërëb yi comme Tiwaawoon Kaolack Njaasaan tey ñoo ngi fii nii ci Yoff commission d'organisation mu ngi fi amal taxawaay bu am solo ngir rek lépp mun a jaar ci yoon defee nag ànd leen ak ñun ngir dund li nga xamante ni lii di préparatif yi salaamaaleykum euh, mbokk yi waa leeral mu euh, ngi leen di sant bu baax di leen bàlla ci déplacement bi euh, gis nañu cër bi ngeen jox laaj yeen ci événement yu mel nii bu amee mun nañu wax ne ci région du Cap-Vert Mawludu Yoff moo ci ëpp moo ci ëpp solo ci li muy drainer ci ay nit ngir képp kuy laayeen ci Sénégal même d'ailleurs Europe dañuy ñëw ci Mawlud bi donc gannaaw appel Mawlud mooy événement bi ëpp solo ci événement laayeen yàlla def ñu organiser ko Yoff dénk ko aussi waa yoof euh, tey ci suba lañ doon def assemblée général annuelle daal def def laayeen ñaari weer yu nekk dañuy daje ci benn dëkku laayeen bu moo lu ñëwee nag ñu daje ci yoof def synthèse wu réunion yi def ci année bi yëpp ci ñett ci six semestre yëpp ci la ñuy fixé aussi orientation pour anne bi ñëw en priorité l'appel donc on s'est réunis ce matin chez le khalife définir les grandes lignes yi nga xamante ni moo jëm ci appel bii ñëw représentant xalif yëpp ñëw nañu au moins une quarantaine de représentant de xalif yoof la ñu yendu tey bu guddee ñu jàng ci esplanade bi ba liggéey ñu tàggoo loolu mooy événement bi waaw mooy événement majeur nag assemblée les grandes décisions yi ñu def euh, waxtaan nañu ak représentant yëpp parce que on se réunit tous les mercredis le bureau du groupement central yàlla def man maa jiite groupement central dañu xelaat ne organisation bu nekk ña ko yor ñoo war a dugal seen loxo bu leen ci fekk fekk leen ci surtout que dafa am suñu kilifa yu mag ci diine ji dañ ne liy jógee ci taalibe yi moo leen gën a sof moo leen gën a saf lu jóge faneen waaw ñun nag on tend vers daal financière ci lañ jëm dëgg état day dimbali ku nekk ci appel waaye nag joxe état fekk la ci moo solo day dimbali ku ne waxin la mais man je peux parler je suis une voix autorisée pour parler de ça li ñuy jot ñun laa yeen ci appel c'est peu c'est minime par rapport ak yeneen kii li ñuy jot. waaw bu Mawlid bi ñëw final ci suñu bopp mais nag comme ni ma leen ko waxee rek. organisation pour l' appel mawlud bi ci lu ñuy définir di jëm ci appel bi ñëw li ñuy financé appel bi on a tout financé état nag duñ ci jox dara moom au contraire dafa am loo xam ne dañu war a assister soo leen jaaree fii dañu waxoon ne dana ñu defar kii bi ba ndox du guule mais boo leen xoolee ndox maa ngi coulé kooku on le dit ñëwuñu ñëwuñu vraiment ñëwuñu on a essayé de kii mais jotuñu leen kenn ñëwul te foo xamante ni ñu jóge Cambérène fa la ñuy jaar ndox di couler loolu vraiment gënul et mois je me rappelle en 2012 appel 2012 bi ñu leen signalé loolu le ministre de l'intérieur d'alors muy Mbaye Ndiaye dafa tapé sur la table mu ne loolu du ma ko seetaan ndox bu wal jëm biir loolu moom tey de jeex mais ren la gën a garaaw 2012 ba léegi ça fait presque 10 ans benn avancement amu ci sur ce plan courant bi moom. macha allah waaw courant bi wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla waaw xam nga assainissement boo xoolee assainissement daanaka moom moo jiitu lépp courant bi moo yàppaat problème au contraire satisfaction lañ leen defal. boobu daal mooy assainissement waaw organisation appel bi organisation mawlu bi euh, assainissement mooy problème bi wax dëgg yàlla te ñun laaj rek lañu man bu fekkoon am nañu les moyens ñoo koy defal suñu bopp mais nag wax dëgg yàlla bu fekkee ne état dafi nekkal ñëpp lu toll ni laajeen di organiser lu toll nii. war nañu mën a taxaw beneen taxawaay waaw. wallahi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax kontaan ci tey moom laa leen wax sànq yàlla def ma président réunion bi ce matin mais ñu ngi sant ñëpp parce que fu ne la nit jóge ñii Fatick ñii Ndar te ñëpp fi la ñuy fanaan parce que moom lu da yàlla dafa def maam Alaaji Malick yal na yàlla yokk leeram moo ko indi waaye ndëkk ñëpp a koy def te loolu la war parce que tariixa bu ne bu ñu ko mën a tudde noonu ak la yàlla sédd mawlud bu ñu koy wax Tiwaawan moo tax appel yoof la ñuy xel dem bu dee màggal Touba waaye mawlud ndëkk mooy li nga xam ne ñëpp koy def seen dëkk ñëpp koy def bari na waa Yoff yoo xamante ne xañ na du ñu laayeen mais fii la ñuy yem parce que foo màggale yonent bi baax na fii la yem mais daal wax dëgg ñu ngi leen dokkeel yéen itam ñu di leen dokkeel dina remercier leeral leeral daal uyu na uyu na daal wax dëgg yàlla uyu na turam parce que lii may wax ci seen kii di k wax parce que mooy mooy dëgg itam xarabuñu kenn waaye nag kuy yokk ñu jël waaw leeral daal ñu ngi leen sant bu baax a baax seen déplacement ak bi ngeen ñu jox bu guddee nag ah ci la mawlud bi maam Diin ak euh, frère am xëy na ñoo koy jiite waaw war fa mën a yegg sa loo xamante ne wax dëgg ku bëgg a dégg ay dëgg ay problème ci ay ay ay ay si yonante bi boo ñoo di ko dégg bay laay dafa waxoon ne korité bi mu mujjee bi mu laaj génn yu boromam dafa tàllal loxoom ne ku am looy jox yonent bi tegal suma loxo boo légee soo ma gisee gis yonent bi sëy naa moo xam ma jël ko jox ko borom soo ma gisee man rek nag nga xam ne yobbante bi ci loxol borom nga ko teg loolu di wax bu xóot waaw jërë ngeen jëf ah bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi mina seytaan rajim laa xawla wala quwata illa billahi lalil azim man la Serigne Pape Mbaye Laye ibnu Seydina Mame Alassane Laye quatrième khalife général des Layènes ah, di président commission organisation bu vision 129 d' abord noo ngi bëgg a waxtaane li nga xamante ni moo nekk si gàmmu gi organisation bi nga xamante ni moom ngeen bëgg xam ah, tey si bisu gàmmu gi nga xamante ni moom lañ def fii si Yoff Jàmmalaay d' abord bu may wax loolu damay njëkk a euh, fësal association bi nga xamante ni tey mën naa wax ne bu diina ji nekkee organisation bi yëpp quatre piliers association boobu mooy trois piliers yi la laneen di door a ñëw euh, muy vision 129 vision 129 nag buñ ko déggee moo ëmb lépp njabootu Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam euh, yàlla dogal bi biñ ko créé 2008 ba 2018 ni créé nouvelle dynamique diiran boobu yëpp nag ni nekk si diina ji dem uti ji lépp loo xam ne diine ji da ko soxla woon mais pour ni tënk li nga xamante ni mooy organisation bi nu def ren gàmmu yi passé yëpp ah, quatre ans si ginnaaw yàlla dara fa dogaloon avant quatre ans yooyu yëpp bu événement musaana am daan dugg si kër yi di abba ay photo yi mais saa yi bu nu demee si kër da ngay fekk sax borom kër gi am ay gan mu ne la bàyyil ba gan yi dem ngay door a yëkkati photo yi vision saa bi ne dem xalaat ne diine ji amul matériel war na noo mën a xool fan la ñu war a mën a jaar at mu jot nag sa leen tàmbalee di jënd ay salon yoo xamante ni boo leen duggee si biir si kanam tuuti di ngeen gis salon bu rafet bu nu jënd pour sëriñ bi kese spécial euh, salon yooyu nag ni koy 300 ndax bañ a àbbi bi nu yàlla defee euh, ni commencé jënd tey leen am 5 si ban dalee jënd ay salon ba léegi te an mu jot rek noo ngi ñaan yàlla mu gën a yokku kon gàmmu gi jàppale ne si lu njëkk si wàllu euh, fu sëriñ siy toog jënd leen salon bu bees bi nu fa jugee diine ji daan def di àbbi ji euh, li nga xamante ne mooy sonorisation bi ngay dégg ni dem ba xalaat ne. ñun war na noo mën a amal suñu yëfi bopp bañ a abatee di vision 129 yëkkati lu toll si 9 millions francs CFA dem jënd ko sonorisation boo leen xoolee trompette yi si jàmbalaay yëpp ak sonorisation bi yëpp suñu sonorisation la parce que def nañ si logo vision 129 muy ñaar tey jàmbalaay boo musaana ñëw fii gàmm dañ daa dem seen rek bind lettre ngir mu àndu ay fiil ngir mu àndu ay làmp vision 129 dem ba xalaat ne loolu nii bind lettre ne ah, dañ koy àbbi ji war nañu ko mën a dakkal nañu fexe génn sunu matériel bopp ak sunu alal ñu jënd ay lampe moo tax gis ngeen tey jàmbalaay ni mu leere li fi nekk si ay projecteurs yëpp vision cent moo ko jënd ngir préparer gàmmu gi yàlla dogal nag si biir préparation boobu noonu yéen a ngi dégg fële na lee mu nekk tàkkusaanu Benjamin ngeen baal ma tuddi ma leeral lan moo ko waral parce que dañ doon def gàmmu bu jotee xale yi guddi gi duñu bokk bëccëg yëpp dañ doon fonctionner mais bu guddi jotee avant xale yu bëri dañuy dem nelaw yi ji vision cent vingt-neuf xalaat ne xale yi war nañ leen mën a boole si programme gàmmu ndax Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa fonkoon ñaar ñi muy jigéen ak xale léegi nag ni xalaat ne war na noo defal tàkkusaanu bésame tey si bëccëg gi xale yi ndaw yoo xamante ni ñi wàccee kaamil bi kenn amagu si 15 ans ki si mag la am ni fexe ba organiser leen kaamil boo xam ne ñoom noo ko diriger gis nga tàkkusaan gaa ngi ni Serif Mame Mbaye Laye moo ko doon dem waaye jàppal leen ne euh, ñun suñu préparation gàmmu amul si benn problème parce que association Vision 129 moo nekk si dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi yëngu si diini ji moo lay jàppale ba fa nga bëgg a yegg nga yegg fa. loolu la yàlla dogal parce que ay sëtu Seydina Limaamu leen d'abord ba pare ànd ak taalibe Seydina Limaamu yi ànd ak euh, julliti yàlla ngir mën a defaat bërëb bii nii. moo tax gàmmu gi jàppaleen ne euh, préparé préparé nañ ko si fan anam bu ne si wàllu lekk si wàllu naan si wàllu organisation si matériel rek lépp am nañu ko yàlla dimbali nañu ba amul benn jafe-jafe. wax dëgg neex yàlla noo ngi ñaan yàlla nag yal na nu yàlla may fekk ak tal ba yeneen i at nii gën a mën a def si diina ji ndax amul lu ëpp diina ji kon noo ngi ñaanal sunu xalifa mu yàgg fi lool te ànd ak waa préparatif yi ñu ngi si guddi gàmmu ndax bi ñu jullee timis rek daanaka ñu ngi si guddi gàmmu euh, mu nekk loo xam ne it wax dëgg yàlla lu ñu doon seenu ci ay weer la ay fan ay semaine ba yàlla dogal tey ñu ngi si ci bés bi wax dëgg yàlla bu ñuy xool dans l'ensemble euh, ñu ngi sant yàlla ndax loo doon séenu ci ay moment yu yàgg ba ñëw ba ci ñu ne ay waxtu moo des pour ñu dundal guddi gi euh, dañuy sant yàlla waaw bu baax. organisation bi bon lépp alhamdulilah alhamdulilah comme ni ma ko waxee dans l'ensemble. boo demee jàmmalaay di nga gis ne euh, logistique ak ñi nga xamante ne ñoo yor organisation bi foofu di gis ne lépp lu ñu waroon def en ce ñuy wax ak yow presque lépp pare na boo amee lu des ay tuuti finition la ñuy def pour vingt une heures euh, nit ñi commencé ñoo installé wu ndax yàlla dogal na gàmm moom bu la vingt une heures fekkee feneen fu dul jàmmalaay xamal ne man nga bañ a egsi wala nga ñëw toog si kii parce que vingt une heures day fees del bon loolu ça va euh, bu fekkee reer yi moom euh, yëf yi ndooyeen yeeg mbengeen yi añ pare na onze heures fekk na añ pare reer yi quatre heures fekk na lépp pare dañuy xaar rek heure bu mu normal rek ñu jox ñëpp ñu ñu xewlu ba macha allah. bon jafe-jafe dañuy wax de dañuy sant yàlla. Euh, ci côté organisation bi ndax yàlla teg na ci loxoom bu baax wax dëgg yàlla ci sur le plan organisation vraiment lépp loo xam ne lu ñu waroon def la am nañ yaakaar ne def nañu le maximum. Euh, def nañu nag benn CRD bu am solo avec le sous-préfet euh, des Almadies service yëpp jël ay engagement mais malheureusement ONAS wax dëgg yàlla toujours à chaque fois moo xam appel la moo xam gàmmu la vraiment ñun dañu jàppe ne ñun laay ne te li may wax nag du sama kàddu man kese kàddu kilifa yi la yàlla dogal na nag <clears throat> man maay coordonnateur u gàmmu gi mais li may wax kàddu kilifa yi la mooy ONAS respecté wul laay def nañu CRD ñu jël seen engagement du dara lu ONAS def ci gàmmu gi du curage caniveau yi du vidange toilette yi du toilette mobile du dara loo xam ne tey boo demee fi ñuy wax Grand Bassam en ce moment may waxaa ak yow mu ngi sotti te Grand Bassam route principale la boo xam ne pèlerin yi nga xam ne dañuy jógee yëmbal Malika Cambérène nga xam ne foofu la nit ñi di gën a jaare fa ndox mu bon mi di génne ndoxu foos nga xam ne euh, ñun ku ñu xam-xam ñu ci lu weex ku ñu xam-xam ñu ci laab ku ñu xam-xam ñu ci sellate wax dëgg yàlla loolu bokkul ak suñu bërëb bokkul ak suñu place mais depuis lors ñu ngi leen di woo depuis lors ñu ngi leen di contacter depuis même le préfet essayé na joindre kenn ku ne si ñoom mais rien n'a été fait amul dara lu fi def. vraiment ñu ngi ñaan suñu kàddu egg fépp fu mu war egg ñu ngiy ñaawlu actu ONAS ñu ngi ñaawlu taxawaayu ONAS ci ndëkk kër Seydina Limaamu du ñu am yenn waxini ni waaye dinañu leen wax ne këru diine bu fi nekk kër Seydina Limaamu moo ko fi jiit beneen bi it mooy cër bu ñu mën a jox feneen ak ñeneen ndax ñun du ñu ay doxandeem ci dëkk bi ci dëkk bi la ñu dëkk xam nañu li xew ci dëkk bi fu nekk dañuy dem di daw ñun dëkk dañuy fonto loolu moom dañu koy wax ci kaw respecté wu ñu ñu respecté wu ñu ñu respecté wu te loolu nag vraiment loolu mooy le sël loo xam ne vraiment manquement lañ ko mën a tudde si gàmm gi mais dans l'ensemble ñun ñu ngi sant yàlla gërëm yàlla julli ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam ndax lépp loo xam ne war nañ ko def lépp lu ñu war a taxawee vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy taxawee organisation bi tam yàlla teg na ci loxoom ba mën naa wax ne ay minutes moo des ngir ñu waajal ay heure ngir ñu dem jàmmalaay célébrer guddik salaatu ala moo du mawludun nabi alayhi salaatu wasalaam mu des mais le problème bi ñuy jànkonteel vraiment ku organiser nag xew wu mel ni dafa laaj nit ñi ñu waajal leen waajal leen fu ñu nekk toppatoo ko ba nga xam ne vraiment nit ñi dina ñu ñëw convenablement dellu convenablement sécurité alhamdulilah vraiment gendarmerie sapeur santé ñu ngi leen di beral mention spéciale Sénélec CNO mbooleem service yi nga xamante ne service d'hygiène vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax ku si nekk avant ñu lay defal rappel ñëw nga def li nga war a def. mais Orange ngi la ñu oo dix mille fois façon kilifa bu nekk ndëg woo na leen ci kër gi mais amuñu benn réponse ci ñoom ba tey fii may waxee yow ay minute daa la wax moo des ñu dem jàmmalaay ngir célébrer Gamou mais Orange n'a rien fait. waaw dañuy dolli santaat yàlla julli si Baay Laay alayhi salaatu wa salaam di ñaanal sunu xalifa général yal yàlla yokk wéram di nuyu sunu xarit sunu soppe sunu àndandoo sunu lépp di Cheikh Mbacke di jël nuyoo bu tedd teg ci loxo mu tegal ñu ko ci mbooleem kuy xalifa di nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp ñu ngi sant yàlla bu baax nag julli ci Baay Laay alayhi salaam bi mu ñu may yàlla mayee ñu fekke waat ren di gàmm fii nii si waañ wi nga xamante ne waañu Yoff la fi la defee waxtaan bi yàlla dafa def si organisation bi nekk si waañ wi man ma bokk si ñi nga xamante ne si ñiy gérer waañ wi si laa bokk am nañ fi ku tudd Maguette Gueye am nañ ko fi tudd Ndémo am nañ ko fi tudd présidente bi di Yaafaati am nañ ko tudd Marème di secrétaire bi yàlla def na mbooloo moomu ñu nga bi ma lim léegi bokk nañ fi nag ak mbooleem jigéen mu fi nekk ñu nekk sa organisation wàññi organisation bi nag dañ si doole santaar yàlla ndax mbooleem luy jaar si yoon jéem nañ si lu ñu man ndax dinañ def ay raje def ay réunion waxtaan si suñu biir en tant que jigéen naka la ñuy def ba mën a def bés boo xamante ne bu sell lay doon bu jaar yoon lay doon si wàllu lekk gi ak naan gi ak accueil bi ak lépp nu nu mën a doxante ba mu rafet ñu teg si ne nañu defit loo xamante ne dafay nekk col gi nga xamante ne moom lañuy def si biir waañ col gi di forcé waaye taaral bés bi la yooyu yëpp buñ si jaaree sunuy góor def nañ li ñu man dinañ ñu jox ay barkeelu en tant que ñun jigéen ñu jooral ko sunu bopp ngir def wàll woo xamante ne mbooleem kuy nit si biir dëkk bi da siy participer bu ñu jógee foofa nag yëg si si li nga xamante ne mooy waañ bi suñu xëyee buñ nee suba la dinañ fi yendu préparer lépp lu jëm si togg ak ak préparatif yi bu ñu defee loolu yëpp bët set ñun fa lañu fi la ñuy fanaan ba bët set 5 heures du matin dina fekk ñuy taal añ dina fekk ñu rësi añ di def lépp ndax dañuy wax ne teel a pare añ bi moo leen di gën a ndax dafa am ay mbooloo yoo xamante ne dañuy indi ay añ comme ñun yoof lañ dëkk nag te yor waañu yoof dañuy bëgg sunuy añ jëkk a pare ngir ñu jëkk a lekk ci añ yooyu pour mu bañ a manqué mu bañ fee des yàlla def nag 9 10 heures 10 heures et quelque 11 heures mooy suñu heure bi ñu war a yekk sunuy añ ndax dañuy bëgg añ yi ñu lekk la le que nga yóbbu añ yi sa bërëb ba mu jëm tant que ñuy séddale waxtu añ jot. loolu moo tax amuñu si benn problème njaayeen yi xam ñoom si côté jóobeen gi waaye si côté mbayeen gi tamit ak siiseen yi ñoom dinañ si gis seen bopp parce que dañuy def le tout kenn bañ a xiif kenn bañ a mat lekk yi dina doy dina neex dina bari dina sell ndax lépp si waajtaay wi daf siy bokk ndax lépp lu jëm si hygiène dañ koy boole si suñu liggéey lépp lu jëm si li ñuy liggéey pour santé dañ koy boole si suñu liggéey parce que ñun ñi di wax ak yéen hôpital lañ ne waa service d'hygiène am na ñu fi nekk si service d'hygiène yi te defal nañ ñu ay formation yoo xamante ne ñun jaar nañ si ngir ni ñu war a appliquer lekkin wi ak gas bi ak mbalit yi ak bagage yi naka lañ ko war a defee ba lekkin wi sell yooyu yëpp dañ si jaar moo tax buñ fa tolloo duñu am problème léegi nag fi ñu toll fii si dëkk bi dañuy gërëm mag ñi nga xamante ne ñu ngi si yoof mag ñi di gërëm it xale yi nga xamante ne am nañu cawartaay ñëw si waañ wi defal ñu fi li ñu bëgg ñun mag ñi di gërëm quartier yëpp di gërëm nag sunu góor ñi nga xam ne ñoom la ànd. voilà mbokk yi euh, comme ni ngeen ko gisee commission d'organisation bi yëkkati na ay kàddu yu am solo xamle nañ ni rek euh, lépp mat na ngir euh, célébrer jëmm ji tedd ji di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mbokk yi woy leen di ànd ak suñu programme dinañ ci dikkaat ak yéen en exclusivité Al Amine mag lay delloo antenne bi jaajëf.